Eh, Idi est-ce li nga mënoon ba léegi Idi mi wexoon tàng lu mu wax ci làmb nga koy gis est-ce que mën na ko parce que am na combat yu taxaw yoo xamante ne fi mu toll nii eh, tuq sa bëll saaj ba réer la Bal Balla Gaye Bombardier euh, Modou Lo euh, nu mu tuddati Ama Balde <laughs> Ama Sène Ama Sène Tapha Tine Boy Eumeu Sène Lac de yooyu loolu léegi damay njëkkee ci combat bi nga xam ne askanu Sénégal ñëpp ko soxla di ko xaar mu nekk dër bi diggante Pikine ak Parcelles Modou Lo Ama Baldé. xam nga Ama sama waay la. Ama ñaanal naa ko. yow ci. bàyyil mu wax. xam nga xam nga Ama ñaanal naa ko. Mm-hmm. doon sama waay mu doon sama xarit. Mm-hmm. Modou tamit mu doon waay ju baax ma xam ay Demba Xarañ Lo ay abdo ñooñu noonu ñoom Ibulaay ak ñoo ñëpp xam naa leen mais Demba laa ci gën a miinanteel yaa ngi dégg combat boobu du ma ci mën a xam la du ma ci mën a ama su dee benn fan sotti naa ko gaalaaj mu sangoo ko ama am nañ seytaane moo ñu jaxase rek contre guy gi bi ko guy gi daane dañoo man maa ko jaay man ku xam-xam ne du jaay xaw ma loolu sax xaw ma loolu boobu moom lañ ci jaar rek que le meilleur gagne na ama entraîné Modou Lo entraîné que le meilleur gagne si barke Seydina Mohamed am gis xanaa da nga ko dul waaw mais am na lu ma ci gis parce que ki yor Quran bi jàmbaar la ama jàmbaar la loolu daal laa am lu ci mën a wax. waaw ah, mais Balla Gaye moom day daan bombardier <laughs> loolu moom ma wax la ko loolu moom mun naa kaa wax Balla Gaye day daan bombardier ci kàttanu yàlla. dina ko daan daal. ah dina ko daan yomb ba mu jaaxaan du doon kadaapi moom dina ko daan ba jaaxaan. loolu moom moo wax la ko mais le reste moom xam nga léegi maa ngi ci làmb ji di ñaanal ay mbër yooyu am na yoo xam ne mënatuma ci wax. Balla sama mbër la. man moom ma gis ko ma ñàkk ko gis am ak moom ay rapprochement sama nijaay la amal rapprochement. muy Xaadim Bay mais man aw ma mais man sama mbër la. yàlla day def loolu waaw loolu day def loolu yàlla moom day def loolu Balla suy bëree man mooy loolu daay fii su wex werante amoon ma toog di liggéey ay client client yi toog fi laaj leen ñoom xam nañ comprends nga mooy loolu ma Lac tamit sama dëkkandoo bu yàgg la xam na ma Papis sama waay la sama xarit la. waaw man maanaam maanaam maanaam Lac sama waay la dama koy ñaanal ndam waaw ama moom mënu ma ko ñaanal safaan wax dëgg yàlla ak yonent bi su dee benn fan defal na ma ko teraanga yàpp na ma si otoom yàlla dem si yàlla si moo taxoon ma xam ko Zil Balde ah moo taxoon ma xam ko yàlla def ak los jaaytaar couture ñoo taxoon ma xam ama yàlla def ma koy ñaanal yàlla def après ay affaire seytaane dugg ci loolu la demee mais du leen daal parce que man moom xaw ma ba si ay nawetaan ak football xaw ma di yor équipe bi yor équipe bi déedéet amaa niñ meloon maanaam am na ñu neexul woon daal bëreeg man kaf man yooyu yëpp mais am na ñu neexul woon mooy loolu mais mos nañ toog ma ne ko man ak yow ba roi des arènes de waaw ah, mosoon nañ toog ma wax ko ko. te fi mu ngi ci filaan roi des arènes yow kay kat idi wax ji boobu wax ji yegg. ñu baal ba mais li kii li amul xel ñoo ko moom mais. idi dama lay xamal ñaar. Mhm. waxuma si waxu ndakaaru ku bëgg a falu soo ñëwee si man falu ak lu mu munti doon. ndakaaru ku bëgg a ak lu mu munti doon laa la wax. ndakaaru Sénégal laa xamal Sénégal ku bëgg a falu ak lu mu munti doon soo ñëwee si man falu. loolu am lu may wax leneen du ma ko ci waxaat. kon Ama bu la seet si woon léegi ngeen toog waxtaanaat trouver terrain d'entente nga jox ko couronne roi des arènes. yàlla moo xam luy xew suba suñ borom kese xam luy xew suba mais nag Sénégal moom samay maama fa nekk. biir Dakar samay maam Cap Vert jàpp île bi ñeenti île yëpp samay maama fa nekk ku si bëgg a falu daal soo ñëwee di nga falu ci kàttanu yàlla. bu bu du Modou jékki-jékki joon dégg lii nga wax rek mu daw na bërëxët ñëw nooy def ak moom. dañ koy liggéeyal ñun amuñu lenn benn benn chance ku ñëw ñu liggéeyal parce que looloo ñu fi tax a toog waaw jiw da nga doon ànd ak moom ba ci yàgg ay yàq-yàq ko. keneen ñëw ne la dama laa sollicité dangay ngay pour pour jàppale ko rek loolu rek la muy moom muy kee ku si ñëw ñu jàpp si te yàlla tax mais nag ñun doyloo nañ lu ñam ndax ñu ngi sant yàlla su dee benn fukki dërëm bi ñuy yeewoo sax di ko yeewoo sax ñu ngi sant yàlla alhamdulilah macha allah. tafaatin booy Boy Niang. booy Tine tamit que le meilleur gagne rek. ah wax fi pour que le waaw Idy te Idy xanaa li doon wax ci yow daa jóge ci yow. non non du question lu doon wax daa jóge ci yow. xam nga soo nekkee kilifa am benn place bi nga nekk ci réew mi léegi am na erreur yi bëri da nga ciy bañ a dugg parce que on a fait des erreurs yoo xam ne suñu ginnaaw moo tax yenn nit ñi sax di ñu xoolee yenn bëti te or ko noonu maanaam làmb ji dafa bëri léegi lu ci laxasu ñun dañ doon wax ci làmb ne la di way daan. soo ñëwee suñu kër jour lam day mel ni mbër bi ñu ñoo koy ñaanal kiñ na mooy daan di nga rey nag dinga nga rey yi nga war a rey yëpp di def yi ngay def pour bañ maanaam ñu fenn la wala ñu wax loola loo xam ne amul. Idrissa Ndiaye léegi dafa toll étape boo xam ne tollatul fu mu waxee erreur li des ci àddunaam parce que Idrissa Ndiaye il est bien entouré maintenant bu njëkk xelu xale moom loon jàpp fëggu xale. mais làmb yi moom làmb jinne la làmb yi ku sëriñ mbër bu si amul jinne demal nga toogi ci. Hmm. non non làmb yi nekkul ay falaa falaa nee koy daan de làmb yi làmb jinne la ak xam-xam bu ñuul ak boroom kurus nag ku mun kurus dëgg ak ñaanu baatim loola fi am mais Tapha am na combat bu baax a baax. am na combat na combat. kon képp kuy doomu Bawol bu am na combat na de mais nag xamal naa la ñaar nga koy dégg de hmm. làmb jooju dina am deret de. xeex round round round d'observation bi dina xaw bari bëri tuuti loolu daal laala la may. <laughs> xam na li xew ci làmb ja de xanaa koy lëbb bañ koo wax. en tout cas ñoom ñaar ñëpp ay jàmbaar lañ mais booy ñaa ngemb giñ ko ngemb ngemb roi des arènes mooy seetaan su ma déggul dina xam bu baax ko ngemb ngemb roi ji actuellement ni mel ci wàllu mystique ak yu mel noonu kan nga jàpp ni ci mbër yi moo ci ëpp mystique. waaw kii fi ëpp mystique moom guddiñ toll ñaar ñett la. dama nga seeti Quench. Quench dama lay limal ba ñeent sax Quench. Balla Gaye doomu dàngu. dama nga seeti ji nga xam bu baax li ma lay xam nga ñu naan Lac dafa am mystique Papis dafa am mystique dafa am mystique des na. ah kay. kon si yorum ngemb gone. Quench xool ko bu baax. xool ko bu baax ah am na mbëri bëri dañuy bëri si arène bi dañuy folklore yenn gàllaaj yi ñu tax yëpp affaire folklore la du ay gàllaaj. seede yàlla du ay gàllaaj affaire folklore ñoo ci bëri barki Sëriñ Fallou man damay gis mbër roogu takk ba fees dell man sama benn sengoor rek su ma la ko joxee sa ngemb ku si jàpp am problème sama benn sengoor rek laa la sengoor nga takk ko. sàkkamtumaak yërëb bi may defal mbër di ko sol mu am béjjani ñu sox ko bind ci ay xaatim déggoo ma de <laughs> dinaa defaat sama retour ci làmb ji ci kàttanu yàlla ànd ak mbër. àndal nag loolu laa bëgg. di si kanam raw lu bët nañ xool rek sama. idi ci làmb nan war a mel. idi bi lu xonq li. Ah, sol mbaxane beeg yi aaji woo lii solal ko <laughs> boobu ba may ànd ak Ama ba may ànd ak Ama Balde la ko période boobu ma koy sol di ànd ak Zil mobile mobile euh, maa ngi mobile sax nu mu tuddati Mopol. tam nekk France. Mopol ñaata combat laa ko ñaanal dégg ko Mopol balaa ma doon génn laa war a làmb ji nii lay demee. mooy loolu tamit. <laughs> mais Idy sa dugg si ci làmb. lan sol yére olof blouson. sort tuddee nañ ma fi ay drapeau tuddee nañ ma fi ñaar Fallou Ndiaye. na ma fi yoon drapeau te bëgg naa sax mu dolliwaat ko ah bëgg naa mu dolliwaat drapeau bi. ci kàttanu yàlla bu neexee yàlla ak yonante bi mais incha allah su may dugg si di waajal mbër moom di ngeen xam ne Idrissa Ndiaye waajaan na bu baax a baax te du yàgg dara ci kàttanu yàlla soobee yàlla ak yonante bi. Euh, ñu ñëwaat ci beneen komba euh, muy diggante guy gi ak rëg-rëg ñaari mbër lañ yoo xamante ne ku ci nekk am na ginnaaw ñoom ñaar kan moo ci ëpp ginnaaw ak combat boobu noo ko gisee. wax dëgg yàlla ak yonante bi gisagu ma jël rëg nii may xool nii ma toogee nii loolu daal laa ci am dëgg yàlla ak yonent bi gisaguma jëlam daal ki koy daan daal gisaguma ko waaw. mystique. non ki koy daan gisaguma ko de. rëgg ñu mag ñi de mais ñi mu tolloon nii gisaguma ko ci de. daa guy gi pour yow. non gisaguma ko koy daan si si si boobu. Mhm. te bu yomb lay doon nag du metti du sax du duy lu yàgg. làmb taxañ rek mu jeex. déggul ma làmb taxañ la bu jeex maanaam laxa làmb boo xam dañ koy taxañ rek bale mu dem. kan mooy taxañ taxañ rek mu jeex. kan mooy gisuma jël Reug Reug ni ma toogee nii di wax ak yow nii gisuma suñ bëri woon tey tey tey gisuma jël Reug Reug xam nga dëgg neex yàlla. kon leer na xaayaan ci ku dégg séeréer. maanaam suñ toogoon léegi nii ñoom ñaar ñuy bëri nii ma toog nii sama kuréel gi di seen gisaguma jël Reug Reug nga say waay mënuñu di ñaanal nit ki. Mm-hmm. ngay taxaw di wax si nit ki safaan bu yàggee sax ñu ne yow da ngaa sikk te am na samay waay yu koy ñaanal kon mooy loolu tamit mun ma cee wax wax yu bon mun ma si wax ne mais gisaguma jëllam